classé bu mbaaw dañ ko tànn ngir ñu màggal bis bi nga xamante ne dañ ko jagleel wàllu désertification ak sécheresse mu nekk occasion ngir ñu dénicher jafe-jafe yi nga xamante ne jigéen ñi ngi koy jànkoonteel ci wàllu foncier ngir ñu mën a def seen activité Il est évident que l'ampleur et la de la dañoo seetlu ni ampleur euh, désertification ak sécheresse bi jigéen ñi ak xale yi la gën a affecté ndax seen forte dépendance ci ressources naturelles yi. Les moyens de des femmes dépendent fortement des secteurs sensibles au climat comme l'agriculture, l'élevage et les lu ëpp ci téeméer ci jigéen ñu ngi ci apiculture ci maraîchage ak yeneen activité loolu nag doyul faw rekk ñu élargir le champ d'accès fépp ngir jigéen ñi. fexe ba jigéen ñi gën a am accès ci foncier bi loolu lu am solo la ndax dana tax ñu mën a xeex li nga xamante ne moo di xiif gi ak euh, ndóol gi seetlu nañ ne jigéen ñi dañu am taxawaay bu am solo ci famille yi. sàmm poumon vert yi fi nekk rawatina forêt classée bu mbaw kaarange bi daal nañ ko gën a dëgëral